mbokku Sénégal mbokku Afrique mbokku àddina ginnaaw bi mu lëloo ci ay fan yi ñu génn fajkat bu mag boobu nga xam ne nii kenn dootu ko natable le roi de la médecine traditionnelle borom xam-xam ba ne ko vous êtes le phénomène universel kooku mooy kan mooy alaaji mu Mouleye Sow mooy xamal bépp patient rawatina taalibe ak bépp soppe ne dina reprendre activité yi le samedi 8 janvier 2022 ci cabinet médical bi nga xam ne nii moom moo nekk fii en face plage de Cambérène den nag terrain jamono yemul foofu de alaaji mu lay Sow am cadeau bu mag boo xam ne nag jox na ko askan wi cadeau boobu lan la mu jënd benn immeuble R plus 3 immeuble boobu fan la nekk mu ngi nekk ci jàmmalaay ci terrain bi nga xam ne fa la tataay di taxaw en face géej gi te ñëpp xam ko immeuble bu soobee yàlla ci ay fan yu néew danañu déménager yóbbu fa cabinet médical bi yóbbu fa aussi siège yu bu mag boobu nga xam ne moom moo feeñal lépp lu nëbbatu ah làmboog njëriñ muy la TMS TV Alaaji mu Moulay Sow taalibe yi association nationale Daarulaay Family ànd ak waa Banjul ak gàmbeek ñëpp nee nañ ñoom tamit seen ziar bi incha allahu rabi danañ ko def muy le 15 le 15 janvier daañ ñëw siyaare seen sëriñ siyaare seen soppe siyaare ki nga xam moom lañ yaakaar ci àdduna muy kan muy alaaji mu lay Sow fa siyaar bi nag fan la fële ci këram gi nga xam ne ni moom moo nekk ci Almadi kon nag ñetti date yooyu bu ko kenn fàtte alaaji mu lay Sow dana reprendre activité yi samedi le 8 janvier ci cabinet médical bi nga xam moom moo nekk ci terrain Cambérène jàkkaarloo géej gi beneen bi mooy immeuble boobu nga xam ne nii jënd na ko R plus 3 fas yéene fa nag ci fan yii di ñëw def déménagement bi dinañ inaugurer immeuble bu soobee yàlla mu war fa yóbbu cabinet bi mu am aussi tamit ay salle d'accueil am aussi tamit siège boo xam ne nii la TMS TV fa lay installé mu ne nag taalibe yi nga xam ñoom ñoo nekk ci association Darou nationale ànd ak waa Gambie bu soobee yàlla dina leen recevoir le 15 këram ci Almadi pour ziar annuel bi ngeen di def Alaaji Thierno Moulay Sow the king of the old the king le phénomène universel qui ne cesse encore de nous surprendre ce nom c'est un homme multidimensionnel Alaaji mu lay Sow